Macky ak gouvernement tegu fi boppam yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ci coobareem ndax boo seetloo ni mu fi tooge ak ñi mu fi fekkoon ñu bugg fi toog yàlla ñëw teggil ko ñooñu ñëpp ñëw du teg ko fi mu toog nga xam ne yëf fii dafa am boroom am doxalin am loi am règle li yàlla di def nag daf dul tàggoo du yëgle dafay dogal rek mu am innama amruhu ida arada shay'an an yaquula lahu kun fa yakun ñu ni bu yàlla di fabriqué mi ngi nekk baynal kaafi wan nuun Macky Sall jiite ko ñu di ko nuyu di ko jox liñ ko ameel ci respect réew mi nekk ci loxoom ñuy ñaan lii yàlla teg ci loxoom yàlla na ca yàlla téye euh, lu nekk mën nga jàng ba ñu ne sotti na yàlla jubbanti la nga taxaw wala fi dañuy wax ni tuyum gëleem lang na waaye daanuwul waxuma politique nag damay wax kilifa gu yàlla tànnal boppam te tàgguwul kenn teg ko ci béréb respecté ko ngir yàlla ma ko fa teg parce que respecté ko mooy respecté jëfu yàlla ci kaw suuf Mm-hmm. te lu yàlla def rek war nañ ko fonk. dëgg bu jëloon benn dof tey samp ko ni mooy mooy borom réew mi mënuñu lu dul topp ci gannaaw dof ba ku am sa ndox sang ko ku am sa mburu jox ko waaye ñu topp ci gannaawam ni yàllaa ko fi teg. Mm-hmm. Euh, ñun yàlla def na sutura. xëy na àddina ku ci dund jëf-jëfu àddina waaye xéeruñu ci politique waaye du tere nag politiquement ku fi yàlla teg rek cër ba ñun dañ ko respecté di la ñaanal nag ndax waruwaay la ñu ci kaw ci waruwaay la nekk nga ame baar bi di dawal war nañ la ñaanal ni ko Cheikh El Hadj daan ñaane yàlla bu pën a toj bu baar de coupon ma dog yàlla bu oto chawiré yàlla bu chauffeur juum yàlla bu kàmb am ci yoon wi yooyu yëpp ñu di ko ko ñaanal pour bëgg réew mi ñoŋ réew mi kenn moom ko ñëpp ko bokk mm-hmm. waaye nag moom lañ ko teg ci loxoom mu mel ne yàlla yëg na ñëpp waaye moom la wóolu teg ko ci loxoom yàllaa xam kon mënuñu lu dul ni lii ko yàlla defal yàllaa xam lu tax mu def ko waaye yàlla nañ yàlla nañu jig ñun ñëpp teg ca ñi nga xam ni ñoo fi nekk na moom moom dafa am fu mu toll woon bëgg réew mi yàlla jox ko ko foofu mu toll woon am na ñu fa toll bëgg réew mi xamaguñu leen moom nag mu fi bëgg a yàgg ñooñu xamaguñu leen ñuy ñaan nag yàlla képp koo xam ni boo amee réew mi waa réew mi am noflaay jëriñu yàlla na ko yàlla teg ci sa loxo ñu ngi leen wax opposition waaye daal képp koo xam ni daa ñëw ëllëg ndax kenn saxu fi yàlla nguur cërëma te nguur gu sax dàkk cërëm mooy cërëm mu tax nag ñi ñuy wax nguur kenn ku ci ne yàllaay comp ci nguur ga mosal la boo demee nag booy bëgg a xàttarbiku yàlla nangu la mu la joxoon xam ni nguur gu sax dund gu sax mën gu sax am gu dul jeex yàlla rek ko jagoo ñuy ñaan ñoo ñooñu tuddee seen bopp opposition ak ñi nga xam ni ñooy gouverner ak ñi nga xam ni euh, euh, muhaayit lañu ñoom société civile ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk yal na yàlla coppati ci sa xol dugal ci sa xolu moroom ba xalaat yi soppiku bëggante am rusante am worma am kersa am teralante am jàmm am ñu jariñoo ko yal nañ ko yàlla boole defal Euh, loolu moo di li nga xam ni moo fi am fii ñu toll moo waral coow li bare na fi jóg ak naatoog toog naan na fi jóg nag bare nañu ñi naan naa nag kenn ku nekk sa bopp la tax di wax toogagoo waaye boo toogee yal na la yàlla jàppale ba nga def fi lu nit ñi mën a jëriñoo bi ci des nag mooy réew mi réew mi ñi nga xam ni ñooy gouverner di jiite bala bu ñu dee tëral dara bala ñu koy mën a doxal fokk ñu jaare assemblée assemblée waxtaan werante génn seeni xalaat tëral su ko validé loola war na am wala warul am waaye bu fekkeen dañuy wax dëgg rek assemblée euh, loola amu fa la am mooy xuloo xeexoo dóorante kurpeñ saagaante waxante lu bon ki nga faral bu waxee lu dul dëgg nga dëggalal ko ki nga contre bu waxee dëgg nga weddi ko loolu moo di loo xam ni moo fi nekk du xas du lu ñu sos ñoo ko fi def ñépp teg ci seen bët ñëpp ci tegaloo seen bët bu yàggul rek lu mat ñaari yoon am na fi te jógagu fi la assemblée waroon a jëriñ mooy ñañu fa teg ñuy ay député kenn ku ne région ba nga représenté soo ñëwee assemblée neen ah taliba de toj na nawet bi dog na yoon wa forage ba yàqu na làmp tàkk gu fa nangam nangam wax a wax a wax pour lu jëriñ foofa ñu seet nan ca ña ko ña ko war a jagoo ministre de tutelle ba ko war a amee mu seet nan la koy jagale loolu moo fa waroon am ñu mënula ñu bëgg a wax ami soxla te mënuñoo agsi yéen ña ñu tànn ni demal leen ñu bu ngeen ñëwee war leen def lu wuute ak lañ leen santoon mm-hmm. loolu moo di seen warugar ah, nit nag doo ko chargé de mission mu dox mu bàyyi mission ba dox soxla boppam dem nañu ba nga xam ni ci wàllu àddina nii rek wàllu société repère amatul crédibilité amatul confiance amatul kenn yaakaaratul kenn kenn ku ci nekk fa mu gën a ñaawee fa ngay tibbe saaga nañu politiciens yi saaga nañu sëriñ si saaga nañu ku deful dara saaga yiwul du defar kon war nañu mën a jéem a jubal war nañu mën a jéem a juboo ndax transhumance su mënee am juboo mën na am transhumance moo di juboo ma ak yow démb maa nga fale yaa nga fale jotewuñ dara tey ma xëy si rek jox la loxo nga jox ma loxo ñu daal di ànd lëngoo ñu daal di ñu portele ku mën transhumance nag ngir sa bakkan ngir àddina war ko mën a def ngir yàlla nañ leen transhumé ci yi nga xam ni yàlla gërëmu ko ñu bàyyi ko fa te transhumé wuti la yàlla gërëm mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaaw-ñaaw yi bare na bare na trop wuute gi doo xam fu mu féete te it kenn ku ci nekk li nga bëgg soo ca jotee coow li ni kuy boo ca jotul coow li ni kuy dana nit benn mu am wala mu ñàkk loolu mooy réglu àddina fokk nga am wala mu ñàkk su ko defee loolu di fi bëgg yàgg loolu di fi bëgg a yàgg trop ñu dem nag ba mu yokk yées na mu meloon mu gën ko yées léegi euh, yàlla nag mën na muñal ay jaam waaye du leen seetaan lu leen neex def léegi yi bon ci jamono bare na yi yàlla bugul réew mi dañu ni réewum jullit la ñuy puukare woo quatre-vingt-quinze pour cent musulman quatre-vingt-quinze pour cent yooyu boo ci dindi woon ñi xam waman naqasa wa zaada ñu tuuti la ñuy doon jàng nañu tubaab nekk nañu ay nekk nañu xawma lan ak lan ñu ngi toppatoo ñu ngi dugg ñu ngi génn ñu lee ngi bitim réew international ñu lee ngi ci réew mi di borom diplôme xale yu tuuti yi léegi kenn nangootul wax wolof ñëpp tubaab lañuy ñuy làkk loolu moo di xeeb sa bopp te sa bopp nag du yow yàlla yàlla la bind nii nii nga mel kon da war a nangu ni la yàlla def boo ñëwee ci jigéen ñi li yàlla bañ ñoom dafa mel ne dañu wax yàlla dama ni dafa mel na xasuma leen nag waaye loo am ñëpp teg ci seen bët maanaa yow yàlla def la bind sa karaw gàtt nga wuti beneen karaw ni yàlla yow ba nga may defal karaw xëy na pénurie karaw dafa amoon bu mënul loo ma defal karaw gu gudd nga ñëw defal ma lii ba noppi wëlbati ko naan euh, euh, naan rëbb naa ku yokk ku ku lonkal waaw wala mustawsila su ko defee nag yàlla ni moom ak yonentam ak ci malaakaam képp ku yokk yàlla rëbb na rëbb na ak ñooñu yàlla def na itam euh, karaw yi fuñ fu mu jóge ñii ñu dee lañu dee foo xam ni duñu maye dara duñu bàyyi dara ku dee rek boo sa karaw guddee ñu wat ko jaay ko te itam feebar dafa bare feebar dafa bare te karaw sore ci eh, deru nit nekk ci biiram boo ko watee rek mu génnaat kon mu ngi ci biir a biir yàlla rek a xam fu mu nekk waaye boo tojoon bopp bi karaw du génn loolu jigéen ñaa ngi koy def mu bokk ci